As the Office of the President has announced on Thursday that uh, Minister of Justice will publish the draft constitution in the uh, Gazette before the end of May. The national document, which was formally submitted to the President or to President Adam Barrow and of uh, of course, end of uh, la, uh, yes, or in March, I should say, is expected before the National Assembly in August, according to a media release from the presidency the Constitutional Review Commission was inaugurated in 2018 to review the 1997 Constitution and come up with a draft uh, that will be subjected to a referendum and usher in a third republic for the Gambia. waaw the handing over was there of course uh, uh, justice Thierno Souleymane Diallo uh, bu mu doon joxee draft constitution bi ci président bi mhm. tey gannaaw buñ ko <clears throat> jotee génne nañ bataaxal wane ne fu mu nekk nii ci weer bi ministre bi dana génne document bi ci ci ci ci li nga xamante ne mooy nu mu war ko yóbbu ci ci ci li nga xamante ne mooy ci pencum ndaw mi réew mi dina fa yegg ci li nga xamante ne mooy August Euh, ci nuñ ko waxé euh, waye tamit warna dem def euh, dal ci li nga xamantene moy ci ci ci August moy balaa end of 2020 dal, dina yegg ci National Assembly bu boba, ñom tamit ñu def seen liggéey balaa ñu yegg ci li nga xamantene moy ci ci referendum bi tay gannaaw liggéey bi bu mu sottee ba ñu jébbal draft bi president bi naka nga gisé process bi ak tamit ñom bataxal bu génnee ak fuñ jëm. waaw nekk na lu am solo parce que so baye xel. ay millions si bari leen jël pour defar des draft constitution bi parce que yaakaar naa CREC biñ bu mu paree press online press conference bu ñu def lu mu si def is more than hundred and fifty or sixty ah, millions so loolu nag réew di ko ékkat yi def ko si loo xam ne ni pour mu mu gaayet dëkk réew bi ba paree ñuy jël loolu tam di ko di ko caaxaane soo loolu warul mun a nekk xel munu ko nangu commission commission boobu ñoom pare nañ seen liggéey pare nañ si jébbal nañ ko njiiti réew mi dan njiiti réew mi foofu mu am ci taxaw selu mom tam setat ko waye set gem na ne dina ko pass bil bi ci national assembly muy ogoso muy septembre ak nu munta deme bil bo mom foog bu dem fo bu bo nekut bi depart di dem because dañ joxe hal millions bari comme ni mala ko wé ci gannaaw pour ñi defer ko defer nañ ko te xalaté askan bi yépp ñu ngi fa donte len amul dara dara lu nga xamné ne ni gambien ci yépp waaye waroon neen laaj ku nekk seen xalaat li si ëpp jël nañ ko dugal ko si ak yeneen réew wala yeneen nit seen xalaat def ko fa den da gis ne kon bug bi amul lu ñoo wiiri waara ba bug bi du dem si National Assembly bi ñoom itam ñu def si seen jàngat def si seen taxaw seetlu door a woote référendum te loolu lañ see xaar auguste septembre yëpp yëpp moo ak nu mu munti demee dafa fa wara dem bu gës ñoko laccé te bokku na li nga xamné ni dina gëna saxal démocratie bi hmm. gën ko déggal parce que constitution bi outé na trop bu fi don talé bu fi nékkon yu bëree mu fi hmm. waye amna ci si point yu nga xamné ni mu ngi lu yees te hmm. dina li jëmbat démocratie la te lool nak askan bi dañ si wara a taxaw parce que démocratie rek jamono lu leen nekk mom rek moy lu mun a yóbbu ci si kanam eh, exactly loolu am solo la xamna ni euh, comme ni ñoo waxee rek euh, bu draft bi génné ba léegi gi bu ci warona am taxaway bu ci warona am ci yu bari mënut a am parce que mhm. situation bi nu mu demee la waaye mun na am sax loolu moo ko dilee tam exactly mhm. konoon konoon coow li ak ak ci ak uh, gis-gis yi def dana doon wutee ci ci ci ci uh, draft bi mhm. uh, waaye tamit gis nañ ci executive ñenn ji si wax ne am na yenn section bi wala benn si section bi defal a discriminate président bi ak yu mel noonu euh, ndax ñoom ne am li nga xamante ne nañ ci demande pour ñu wàcci ko euh, loolu tamit leneen la xam naa Gambien si nañ nañ ko xaar bu yeggee ci pencum ndaw réew mi ñoom lan lañ ko gisee ak taxawaay bi lan lay doon yooyu yëpp ñu xaar ko incha allah suñu kanam euh, ndax lu am solo la mbiri luwaa la luwaa la si nekkee ne président bi gis na lu ko fa neexut su fekkee luwaa mayee na pour ñu génnee ko dañ leen ko géwaay su ko luwaa mayee du tam béy na mbuus dañ koy paas noonu rek mu dem gis na rek loolu la loolu la yàlla dogal. waaw exactement waaye xam nga yëf yi affaire mm-hmm. loi dafa am li nga xam président dafa am doole lu may jamono ji ak yu mel noonu. Mm-hmm. comme li nekkagul loi ci process boobu la nekk loi bu nekk am na lim ko may. Mm-hmm. yooyu yëpp mën na am ay tënk-tënk. waaw mooy waaw te loi loo ko waxee dafa. dafa bëri ay ceneen. roxo roxo yi te <laughs> gars yi bu leen dajale yooyu noonu yëpp. bu ñu ko dajalee rek am dara. soo soo xam naa ne xalaat yooyu si la gars yi nekk moo taxit mu ñu ngi kaw ñu ngi ko wax fii ba ogas waaye li si kanam daal rawul bët te yoon fekk yoon jeexul rek waaxu seen yi dem du passé incha allah waaw mu ngi noonu jërëjëf euh, Modou Niang am na solo bu baax a baax